tey jii dañ fi ñëw ndax comme ni nga ko xamee bi ñu tàmbaleeg léegi joxe gum nañ fi 8000 masques tey jii ñu indiwaat yeneen 5000 masques mais 8000 masques yële yëpp ci chef de village lañ ko jaarale woon pour askan bi jot ko mais 5000 yi ñu indi pour yokk ko ci mu nar a def 13000 dañ ne dañ koy jox cinq ASC yi nekk ci localité bi te ñu tàmbale ko fii ci ASC rek mais ASC bu ci nekk dinañ dem fekki ko fa mu nekk jox ko ay masques am ko aussi ay t-shirt yoo xam ne ko permettre. am ben comité bu ndaw bo xamantene ñom ñoy jël en charge ce combat parce que tay xex bi fi mu toll ñu ngi ci phase de transmission communautaire et ku wax phase de transmission communautaire di que gox bu nek ña fa nekk te organisé wu ñoo wara jël ci sen organisation bobu ñu organisé wu pour gëna mëna xex combat bi Sénégal nak amna chance am beaucoup d'ASC yom dañu bokk ONCAV ASC nawetaan tay ASC yoy nak mat na 45 fils suñu localité am na ci xale yu bëri ñu ngi ci doon yëngatu ma leen ciy remercier parce que xale yi xaaruñu ñun ñu jóg spontanément jóg nañu dans les quartiers te loolu déjà motif de fierté la et de satisfaction ma ci profité pour féliciter les 45 ASC de notre localité te nag suñu ñun en tant que acteur bi agir ci combat bi moo doon ñu ñëw jaarale jàppale boobu ci ASC lii ma def dama koy def pour servir d'exemple pour fexe ba nit ñi jéem a xam gravité combat bi ku nekk jàpp ci lolu mo ci ëpp solo tax may félicite également initiative yi am yëpp ci localité bi fii ci Diass vraiment les structures s'organisent combat bi ñëpp a ngi koy jël en main te je sais que bu ñu góorgóorloo yàlla mën nañu jàppale. parce que boo xoolee le ministre Diouf Sarr li mu wax te président de la République wax ko aussi mooy combat bi dafa dugg ci phase de transmission communautaire laaj combat communautaire. combat communautaire nag boo koy wax ASC la moo tax maa ngi lancé appel sama xarit euh, Amadou Kane président ONCAF te dinaa ko woo sax su ma paree ci cérémonie bi pour que l'ASA yi le Sénégal spontanément nañu organiser wu directives yi au niveau de leur base bu ñu un combat communautaire c'est les comportements dans les quartiers les comportement dans les quartiers il y a des petits quartiers, gis avec pédagogie faire venir nit changer comportement donc l'année, laa ne euh, ñu vraiment nous lançons un appel pour que ASC yëpp def à l'échelle du territoire national parce que tout simplement loolu mooy jàppale état bi mooy jàppale suñu médecins ndax médecin ñu ngi def liggéey bu mucc ay sol masque bi xam nga li ci médecin yi wax dafa leer sol masque bu dee da nga am feebar bi di nga bañ a wàll keneen bu dee keneen ki dafa am feebar bi mën nga mucc ci loolu mais fa la yem kon sol masque bi c'est important te ñëpp ko war a sol parce que virus bi mu ngi dugg ci nit ñi te kenn xamul kan moo ko yor ci à côté de sol masque boobu geste barrière yëpp dañ ko war a te gi Sénégal war nañ fexe ba li état tere ñu bañ ko def. état bu né bu jogé ci région bi dem ci région bële bu ko def état bu téré né nit ki fexel ba euh, bul di tok ci mbolo bul di attaaya ngeen di nanando kaas yoy éviter len li, éviter len lële ñep dañ ci wara a té lolu moy permettre ñun ñep ñu mëna xéxando mbir mi soulager suñu personnel médical bi nga xam ñu ngi def liggéey bu am solo. lolu mom euh, euh mir la mo xamante je pense que ministre bi yor hydraulique dès les premières heures impliqué nañ ko ci biir combat bi.

waaw wax na dëgg même moom balaa muy ñëw sax dafa fekk ñu entamer combat bi parce que depuis le début on a pu sensibiliser par notre propre moyen ñu jënd ay eau de javel ak lépp ñu dugg ci kër yi distribuer sensibiliser parce que dès le début on a senti que combat bi ASC yi dañ ci war a dugal loxo la moom on a pas attendu. non geste bi dañ koy saluer parce que moom xam le rôle d'un ASC man maanaam moom dafa dugg ci mouvement associatif nekkoon président de zone moo tax mu xam lan la ASC war a def. tey jii bu ñëwee nag duñu ñu ci moom parce que dafa yàgg di def jëflante ak ASC yi tey jii mën naa la wax ne souvent boo am na ñoo xam ne boo leen laajee ñaata ASC moo am ci commune bi duñ ko xam mais il a pu dire que ne 45 ASC ñoo ni nekk au niveau de la commune de Diass comme moom xam na nan la ASC yi di doxee waa kon geste bi bettuñu masque yi ona a un WhatsApp boo xam ne ASC bi fa la ñuy discuter le président dama koy yóbbu sama kër en attendant ngone ñu lancer ko ci groupe bi ku nekk joxe sa xalaat après demain matin on va faire la distribution en même temps sensibiliser waaw parce que dañ doon xalaat sa jëndaat ay détergent ak yooyu boolewaale ko masque yi kër gu ñu dem aussi ñu bàyyiwaat fa yooyu. message bi benn la ah, même ñiy dem sport mooy que ne nañu moytu moytu bi mooy premier des choses moytu bi nag dafa am geste barrière yi ñuy wax. ñi nga xam ne aussi ñooy suñuy morom yi nekk dakaar ak ñi nga xam ne ñoom ci ci suñuy famille nekk Dakar ak d'autres contrées ñoom seen ñëw bi ñu limité ko parce que xam nga comme maladie bi dañ koy transporter te amagu fi barrières yi mooy frontières yi d'abord frontières yi après ñu def geste barrières yi bañ a def grand place yu bëri yi nuyoo yi ak yooyu.